Thank you. gaaw mu gaaw naan bu ko laal waaye yëngale la wàcc yóbbul ma jokkal jokkal jokkal njuk njuk njuk njuk jokkal waaw aada ñëwal nii aada non man nga ko def kan mooy njëkk a wax kan moo war a njëkk a wax jokkal Tawfekh yaay daaj am dem yaaw ziar bu baax Tawfekh ñu lay ziar salaamaaleykum maa ngi ziar Koulousma di ziar ñi fi teew ñëpp di ziar tamit kilifa yi nga xamante ne ñoo fi teew di ziar di ziar ginnaaw bi ñu sant di ñaanal suñu ñaari waajur suñu gën naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di sama adversaire Ada Fass di nuyu sama parrain Kéba Kanté di nuyu Cheikh di nuyu Baye Mara gis naa li def sama combat bi maxu subateel aussi Pape Diouf ak ñi ma àndal maa ngi leen di nuyu bu baax a baax borom Touba borom Touba jërëjëf Cheikh Mouhamadou Rasoul di àllaxa Moustapha Krafal jalo France borom leer maa ngi koy bëggee force ordre yi yan force ordre yi maa leen di ñaan samay nit indi ma leen fi pour violence ndaxal pour violence dama bàyyi na seen kër ñoom ñëpp ñun noo ala violence la ñuy dox man xale laa làmb laa yaakaar mu indi violence maana di ñaan quoi làmb léegi si kaw bi man coo indi ma fi làmb moom fii nii ne ko woon làmb du ma fi ñëw xale bu ndaw laa làmb laa yaakaar waaw maa ngi tudd di jégalu na bu baax a baax a baax mais respect ñun ñëpp di wax sama adversaire lu ma koy wax bëriwul Lamine waa Ndakaar maa yeb nekkul Fass kese ma yeb Ndakaaru mu dem di bootu man bootuma si kenn damaa gëm li ma doon te balaa ma koy xam bàyyi ba la vingt sept si kàttan suñu borom yàlla bi may ndam maa ngi koy ñaan yàlla ndam si kawam bu seddu guy dama koy am barki sëriñ Bamba kii am lu mu laaj dama koy def ndax làmb lu ma jaral barki sëriñ sa lekkul kii moo may téye barki sëriñ Bamba aywa waaw Lamine hmm. xam nga ñun nekkatuñ ay xale ci ku bëre 17 combats. Hmm. maanaam Ada Fass mi nii bàyyi ma ko ci làmb xëy na tolof tolof moo am ci làmb nii rek moom tamit mu def ay preuve mooy bëre moom. Hmm. mais le 27 incha allahu rabi le 27 bu soobee yàlla. waaw war bi génn suñu diggante. dina xam ndax fonk naa làmb ji wala fonk ma làmb ji le set incha allahu rabi maa ngi ñaan yàlla yàlla may mën ndam ci kaw Ada ah, bu ma koy wax day lox day lox bu mu lox. man làmb ji daf ma jiiteel te làmb ji dañ ñëpp Sénégal njaay bi yëpp dañ xam ne ne man mun a bëre car macha allah si làmb ji ah, kii dinaa ko bëraloo ba miir xam na paala day gaaw miir dama koy bëraloo ba mu miir ma soog kaa daan kii dama koy duma daan ko dama ko gëm wax ko ko doomu aadama gëm du nekk si yow dama gëm dama lay duma dama lay daan jokkeel yow waxal déggoo li ma la wax la bil man signature man kenn xaw ma ma lembale signature yaa ma dégg mais Ada dafa am lu mu umpale ci man te le 27 allahu rabi dina xam man maay jokel dina xam man maay kan dafa am la nga xamante ne Ada Fass xamu ko ci man lan la Ada Fass xamul ne mbër laa Ada Fass mbër laa mbër lay bëreel na fonk combat bi na ko respecté nga xam ne am na combat nee na nga respecté ko onze combat dix combat bëréew ma cinq minutes wax loolu dafa dof xanaa ay mbër la kon lan la man lu ma daan ay lan nañ os dix combats cinq minutes bëréewu ma ko si làmbu samay combat deux minutes minute mu jeex te une ma daan ko kon kay miir du sax dof waa mu ay mbër doo dërëm yàlla baax na ba le 27 incha allah rabi Lamine ba le 27 maa ngi woo nag sama yi maa ngi woo waa Kër Massar yëpp di woo waa Fatick di woo waa Parcelles waa Louga di woo sama fogole séeréer may simnaa nun gid maa nun yaakaara nun xooyaa no combat fene maa ngi sant bu baax nag Baye Mara dafa jàpp sama combat Baye Mara maa ngi lay bu baax maxu ba teel Pape Diouf xam nga gars yi bëri dañoo jàpp sama combat bi hmm. Kër Massar gi nag ñu ngi koy waaj bu baax a baax kañ nga def open boo ko xale boo ko jeunesse bi esa yàlla xale yi la àndal eh, kii dafa mbooloo kii baala na xool defi mbooloo ne leen moodu ji laamu ji xale yee ko moom jamono ji yàlla yi xale la ñuy àndal. sa waay maa ngi gërëm ñëpp ay bu ma limee rek damay juum ay sama doom nday du ma ko fàtte sama doom nday Sakar jàpp léegi kooku du dara kooku sama partenaire la parce que Serigne bo di gërëm na ko yaa ah parking maa ngi di gërëm maa ngi gërëm sama mafia Baye Fall yëpp kii day xaar bu bis ba la day xaar open press bi la open press woo ñëpp euh, autorité yëpp maa ngi leen di woo di ki kii bi fu mu dëkk maa ko gën am base Kër Masaar Fatigo fépp fu mu munti man maa ko fa maa ko fa gën a am base fuuf du man ak moom dama may may dafa bëgg a xew dafa paa bu gaan di socc nga da ngaa bëgg xew kontaan nañ ci yéen ma fasow leen fasow leen jokkal jokkal jokkal kaay